Euh, li président wax ci conseil des ministres euh, de semaine parce que mooy dana jàppale boulanger yi pour ñu am matériel yu bees. Mhm. bi mu ko waxee aussi boole nañu ak euh, ministre du commerce ak de l' économie ministre de l' économie ak FONGIP donc dem nañ foofu ci 48 heures dem nañ foofu yëpp ba nga xam ne jox nañu ay garanti yu wane ne danañ ñu jàppale ci matériel yi changé. ñu matériel bees waaw dinañu jox ay financement yoo xamante ni commencé bon commencé nañ dossiers yi actuellement. Mhm. léegi loolu maanaam nekk na loo xam ne dinañu dina tax li ñu doon consommer mu wàññeeku. beneen bi ci nekk mooy réglementation bi comme tey ni ñu ko waxee ci boutique ñun euh, boulanger yi am nañ ay point de vente yoo xam ne comme man tey man maa ngi plus de 106 femmes yoo xamante ni euh, zone bu ma nekk damay xool magasin boo xamante ni dama koy aménager luye ko donc di jox. femme bi mburu moom it muy jaay ay ndambeem ak affaire yooyu ci biir ak puis du jaayale mburu bi. Mhm. donc ñun système boobu lañ jël ba nga xam ne maa ngi 106 106 femmes yoo xamante ni bu ci nekk maa ngi ñëw ak sama xaalis aménagé ko def lépp ko ko à 150. moom muy jaayaatee à à 175 di am dara. Mhm. tey tey tey 106 yooyu boo seetee ñu nekk seen ginnaaw ay milliers lañu. donc ñun noonu la bëgg a defee secteur bi mais tey bu fekkee ne man dama jël xaalis ma investir def ko ci benn point de vente minimum minimum ma def fa benn 500 wala 600 mille aménagé ko. jël benn femme boo xamante ni moom ak njabootam yépp ci lañ ci ci li ñuy dund. Mm-hmm. parce que moom bu yeewoo ci lay jaay gargotam ak yooyu bu demee. doom bu jigéen bi ñëw jaay affaire yooyu. léegi yow nga bàyyi boutique bi nekk ci côté bi nga xam ne mi ngi mi ngi à côté moom maanaam cent sac sac sac farine bi sax du ko jënd amul dara lu muy jënd te boutique bi deux cent leen di jaay pain parce que moitié bi cent la koy jaay jaay la beneen moitié bi cent mu nekk mu nekk deux cent donc loolu loolu suñu bopp ñoo ko war a bañ ñun sénégalais su bopp war a bañ loolu parce que tey ñun système bi nga xam ne jël nañ ko ba jël ay femmes yoo xamante ni dañ leen di jàppale. Mhm. seen famille seen lépp Dakar fii man ma am naa ay vidéo yoo xam ne su ma la ko joxoon fii femmes yoo xam ne dañ lay yi pour pour la baguette. Euh, nu ñuy def ba delluwaat ci. no amul non jàllul parce que baguette standard bi. cent soixante quinze ñun ba léegi deux cent la ñuy jëndee. non parce que yéen a dem ci. boutique bi mais boo demee ci boulangerie bi doo ko jëndee loolu. xam nga dafa am loo xam ne consommateur bi ci boppam yéen a war a jàppale mën naa ne secteur bi mu dem parce que dafa am loo xam ne yow boo ko gëmee rek ne man daal boutique bi daal laay dem jënd ñoo taxaw benn yaa ngi tëj boulangerie bi parce que te tey boulangerie bi man mi wax yow ni maa ngi 86 personnes maa ngi 86 emplois directs. ñaata boulangerie ñaata boulangerie. moi j'ai 7 mais tey sama ginnaaw li nekk ginnaaw man naa ne sama boulangerie bi ci bi ci gën a néew lu muy làkk 26 sacs la par jour. mais est-ce que sinon nekkul combat de parce que bon nekkul combat de personne hmm? c'est-à-dire entre boulanger au mu nekk combat boo xamante ni man pour le Sénégal poulet mais combat de personne la c'est-à-dire dafa am ay conflit d'intérêt comme bu fekkee da am sept boulangeries yi hmm. ak tant d'employés hmm. ak tamit euh, li ngay li ngay lakk ay quantité ay tonnes euh, pain hmm. mais dina am yeneen ay intérêts yoo xam mu ngi dugg en compte te ñeneen ñi bu fekkee ñu ngi doxalee neneen rek du la arranger di coup yow comme que tu puissant dans le secteur nga lëkkaloo ak sa benn copain ñaari copain ngeen ne bon voilà on va neutraliser le secteur est-ce que nekkul loolu moom moo am. non non non du loolu. parce que ñu jeexal ci loolu parce que tey mën naa ne boulangerie boo dem euh, même bu dee deux sacs wala trois sacs lay def bu ko jaay bu koy jaay ci boutique am maanaam am na ay personnel bu muy téye am na emploi yoo xam ne da di téye mais bu fekkente ne nii da ngay dem toujours jënd ci boutique bi dafa am loo xamante ni boulanger bi bu yàggee day tëj et boobu nekkoon ci ginnaawam aussi dañuy dem. chômage. mais pourquoi pas yéen ngeen collaborer ak. les les les boutiquiers mais mais yi aussi ci yéen nañu jëlee hmm. mburu wala. non non boutiquiers yi xam nga dafa benn système boo am Sénégal boo xamante ni tey boulangerie yi nga xam ne dañuy livrer maanaam duñ defar qualité bu baax. Hmm. bokkut ak bokkut ak ñun ko laa mën a wax. donc ñoom yow au lieu que ñu génne defar qualité bu baax bi. mais si parce que ñun tey suñu qualité man tey mburu yi boo ci boo ci boo ci laal ëpp na 200 ëpp na ëpp dafa am beneen feneen fu mu bëgg a laal tuuti rek. mooy mooy mooy mooy pain à nga xam ne da koy dégg ñu koy wax. mburu dugub mooy mburu dugub. tey xam nga mënoo jël benn saak farine 50 kilos. Hmm. mu jar 19 200 tey 50 kilos dugub moment bi may waxee nii cent lay jar kilo. Mm-hmm. léegi cinquante kilos bi dalay lay coûter vingt cinq mille l'avoir pilé ba pare day day day ñëw taxaw trente et mille. Mm-hmm. léegi cinquante kilos dugub boobu mook euh, cinquante kilos farine de blé bi ñu importé am nañ différence onze mille huit cent. léegi tey mënoo munoo liggéey boo liggéeyee mburu dugub mooy gën a cher lañ ñu koy jaayee euh, consommateur bi. effectivement alors que ñun li ñu bëgg mooy loo xamante dafa yomb. tey nag am na ci ñoo xamante ni comme beneen camp bi ngay wax suñu problème laa lay wax mooy comme tey ñoom ñi ngi wër di wax ne léegi pain céréale bi moo gën a baax moo gën a yomb te tey boo seetee sur deux mille et quelques boulangeries li koy defar matul cinq wala trois boulangeries. parce que noo defar pain pain de mille ba pare jaayee ko trois cent wala wala quatre cent consommateur bi du ko jënd. donc ci loolu la yee rek. Euh, euh, population bi ak état bi mu jàppale baykatu dugub yi ba nga xam ne ah. dugub bi dina mën a jar cent kilo wala yooyu laa ñun dinañ mën a liggéey quoi. mais bi ñu toll nii ku la ne céréale day lay nax rek. day wax rek.